mag du këpp boppam ndox surtout nekk ba dee ba bon. Mm-hmm. dafa am loo xam ni moi je me pose toujours la question je je je bon après nag mun nga ne ces images la l'objectif lan la they don't care about c'est plus pour montrer au niveau international que oui gis vous avez vu voilà la réalité te loolu ndax sa bopp la. Mm-hmm. tubaab yi dañoo am ay services de renseignement biir Sénégal xam li fi xew. kenn leen nax ci lenn li jàng nañu wolof di wax di dugg suñu biir di dégg ak leneen ak leneen ak leneen ñu ngi yor suñu télécommunication yor suñu téléphonie ñuy wax di làkk ñu ñuy dégg xam situation bi en général au vu de tout ce qu'ils entendent que population yi fii la ñu toll nguur gi xam nañ réalité bi donc mun leen leen nax ci sens boobu données yi dafa changé la technologie a fait qu'aujourd'hui l'information à temps réel sa waay dafa gaaw ba meeting bay daw nit ñi yëg nañu la fa xew xam na mu demee xam ña fa ne xam lu leen fu yóbbu xam nu ñu fa demee et cetera et cetera donc même la presse traditionnelle am na nu muy demee am na nu muy bindee am na nu muy diffuser day nax boppam alors que nguur si li mu war a dem. mooy des débats techniques nguuru Sénégal organiser des débats techniques et pour la communication du pouvoir on le dira ainsi au lieu de mettre en au devant des acteurs politiques yuy ñëw di toog lu mel ni coronavirus nga teg ab ministre lu mel ni euh, terre nga teg ab ministre ak la ca des teg leen les techniciens les ingénieurs les spécialisés et spécialistes ñoom ñu wax nit ñi dégg daal kii di wax technique technicien la ci anam bii ci lii mais. ab autorité bu ñëw toog vous savez sur l'instruction du président de la République Macky Sall la vision du président Macky Sall si la population n'écoute plus ça passe pas donc si je dois donner une note quelconque sans prétention ngeen baal ma mhm. ñi seetaan ngeen baal nu rek entre les deux meetings je, je vais vraiment me, me limiter à ne pas justement donner cette note-là quelconque ñu bàyyi ñi ñëw seetaan ñu wax ci seen xalaat on a vu les deux on ne compare pas mais on peut constater et évaluer et chacun de son côté fa mu toog mën na natt am na xel mu ne ñi ne ci nguur gi ñi ne ci opposition bi ku si nekk xam nga lan moo la dëkk xam nga fan na Sénégalais yi toll. xam nga mhm. fan la population yi toll est-ce que dañoo kontaan est-ce que dañoo mer la frustration est de taille de haute mhm. D'accord. mais pas ça. jëlal say meeting. si si si Ba nous dit que euh, ñoom euh, ils ont euh, les moyens de préserver la paix dans ce pays et ci beneen côté ci beneen fànn mu ne ñu ñoom benn candidat rek la ñu am pour deux mille vingt quatre et pour deux mille vingt neuf et c'est le président Macky Sall est-ce que investir le président Macky Sall pour un une troisième candidature entre guillemets dina indi lii di jàmm ci réew mi. Euh, léegi dinaa xaw ma luy xew suba de wala gannaaw suba wala gannaaw suba yàlla rek xam lii sax est-ce que du campagne électorale pour Amadou Ba kilifa bi nu ngi kaa nuyu jekkoon na ci de lii ma gis nii xoolil. Mhm. moom jekkoon na ci ñoom nañ ko def candidat may nit ñi jàmm ayow. Mhm. nañ jàmmal nañ président Macky Sall na def ki candidat may ñu jàmm wala dafa am beneen candidat am na ñuy wax naan Abdoulaye Daouda Diallo la bëgg a def candidat dégg naa loolu man kaa dégg de. Abdoulaye Daouda Diallo maay hmm. Abdoulaye Daouda Diallo xam naa dafa nekk est-ce que newul ci àll bi di def tournée ah c'est de damay wax lu ma dégg rek laay wax xam nun nun lu nu dégg mu siiw wallaay nun lu nu dégg mu siiw de parce que nee nañu président bi euh, am na sax benn kilifa bu ma ne non président day dem il va pas poser sa candidature même bu ko posé sax euh, il sait day làmbatu rek mais day dem moom kay fi mu ne bu yóbboo ngeen waaj mu ngi lijjanti keneen président baal ñu rek dañu ko dégg hmm? waaye Amadou Ba bii ma gis nii dafay dem jëf ah. kon dina am de. réeroo diggante kan Ba ak ah, dina am diggante diggante ki ne ki la ne euh, président day dem du du présenter une euh, troisième candidature képp koo xamante ne yaa ngi wax jëm ci troisième candidature am euh, soit dañ lay dañ lay yokkal say ndomba tànk mbaa ñu fal la ci ay poste stratégique yoo xamante ne day tax nga am baat ci réew mi boo ci waxulee boo moytuwul da ngay mel ni dañ lay écarter le cas de Mimi Touré la moom dafa bañ troisième candidature président Macky Sall gis nga fi mu mujje les conséquences son là. lenn dinaa la ko wax. Mhm. man daal li ma dégg dégg naa sax. keroog dama gis euh, senu xarit bi man Mansour Cissé. Mhm. mu wax ci banc public Seneweb euh, révélation la je pense. xam mhm. la xamal nañu ne Pape Diop ak euh, une délégation daal apparemment dem nañu di négocier ak Karim Meïssa Wade fële ca Doha pour que daal apparemment mu nekk kandidaa boo xam ne day ñëw def face à Ousmane Sonko ko et cetera. Mhm. en tout cas ñëw jël affaire yi la retrouvaille ou le retrouvailles de la famille libérale. bi ma déggee loolu sëriñ Mansour Cissé euh, sëriñ Mansour maa ngi laa ziar bu baax mu wax ko ci seen web j'ai dit à la seconde. xulil mhm. à la seconde ma jël ma téléphone woote woote nañu ba ba Doha. <laughs> wee pep pep pep woote nanu Doha woote nañu Paris comme comme mbiram information la. Mhm. xam nga fii Sénégal information. dangay gis benn jour confrère ñëw génne benn scoop. bu génnee scoop nga ne ah bravo yow it nga dem ca scoop ba loo xam ne mot mot mottaliwu ko woon nga jéem ko mottali yow it nga am scoop kon xaw ma nag ndax ñun dañoo am scoop am déet ndax réew moom jàppal ne loolu la wax ne wax nañ ko sa morom. waaye ba nu vérifier laajte dañ wax ne Karim Meïssa Wade les aurait éconduits maanaam lanu ko jéem a proposé nanguwu ko. cela la ñu wax ne nanguwu ko ak ñoom il n'est intéressé ni de près ni de loin te daanaka amnistie ba sax bëgg ko soxlawu ko ah bu dee looloo am on le en passant. Mm-hmm. bu dee looloo am ça veut dire am na foofu foofu cas la waaye li wóor bu wóor na bu mooy discours boobu nga wax ne moom la Amadou Ba tenir. Mm-hmm. moom sénégalais yi parewuñu pour nangu lool sénégalais yi parewuñu pour ñu leen di imposer euh, président Macky Sall deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf loolu wax yooyu sax man xaw ma waxi lan la. Mm-hmm. loolu kilifa bi euh, ba. billaay mm-hmm. bul bul dugg foofu kilifa bi bul bul nangu loolu bul nangu loolu amaana nag tamit wax dégg amaana boppam la aussi moo la campagne pour moom amaana. Euh, ah, mais daal mais daal deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf Amadou Ba tuddul boppam de. président Wade kii la tudd. président Macky Sall waaw léegi président Macky Sall 2024 2029 loolu moo la hmm, la. loolu loolu mooy mooy sénégalais yi kaay ñu xeex par force loolu loolu ni xel mënu kaa dégg sax loolu yanul maanaa xam nga aussi benn instant kilifa bi loolu moom kilifa moom sunu waay nga lool sunu xarit nga lool sunu kilifa nga sunu mag nga sunu lépp nga waaye boobu moom mënul nekk mënul nekk loolu il faut parce que na ko. Hmm, hmm. nu répété ko fii jaxasewuñ leen seen parti suñu yoon new ci jël leen Amadou Ba bi ngeen def ko candidat dénk seen bopp yàlla may nit ñi jàmm. président bi tàggatoo ci tàggatoo bu rafet lu ngeen dàqante lu ngeen am jël Amadou Ba on di dit ici il est bien vu dans les grandes familles de ce pays il est bien vu partout nit ñi am na ñu ko gëm ñu bari ñoo xam ne bëgg nañ ko def leen ko candidat ngeen may ñu jàmm bañ a taal dëkk bi. mais pourquoi nous imposer forcément président Macky Sall mu dul moom du keneen loolu moo lan te moom mu pare war a dem mu wax ko waxaat ko répété ko wax ka waxaat ko bind ko ci constitution bi constitution bi maa ko feere tëj na ma ko kenn mënatul Ismaïla Madior wax ñëpp wax waaye yéen tamit nag nit waaye kersa nag ci am na yoo xam ne nag xel mënu ko dégg quelle que soit la dose de politicité entre guillemets de politique boobu en fin de compte lii mënu nekk. waaye mënuñu bañ dara démb ñëwaat tey bëgg ko nangu par force parce que bëgg ko imposer nit ñi xeex rek ngeen fii indi xeex te jaru ka monsieur Ba Amadou lii moom bu la si kenn dugal billaay bu la si kenn dugal. parce que ban position la boo xam ni day day day day wàcce niveau day wàccee grade. c'est-à-dire que parce que sénégale yi nekkatuñu ñu ñoo nax sénégalais yi dañoo nekk ci beneen niveau sénégalais yi ñoo raw ñi leen jiite ci gis-gis ci xalaat ak lépp vraiment. mais mais pensam tey euh, président Macky Sall bu fekkul woon tey buggul dem est-ce que li gënoon du du des des des élections libre et yi nga xamante ne ñu bëri ñi nga xam bëgg nañoo bokk muy xalifa euh, xalifa Sall xalifa Khalifa Ababacar Sall. Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko ñëpp ñu mën a bokk sénégalais yi tànn librement ki nga xamante ne moom lañu bëgg mu jiite réew mi mais li ñu seetlu mooy euh, élimination pour élimination. dañu fiy jëlee jëlee nañ fi pas mal de candidats dafa mel ni sax tey bu dul Ousmane Sonko est-ce que peuple bi am na lu choix ci ci beneen candidat boo xamante ne mën na présenter wu mu mu mën ko sànnil baatam librement. Nabokor. Mhm. soo bëggee dégg dëgg boo bëggee dégg dëgg. Mhm. Sénégal waruñu toll fu ñuy waxee diw dana bokk diw du bokk na ñëpp bokk kii war a bokk bokk. kii warut a bokk du bokk kii warut a bokk kana. kan moo warut a bokk. mais président Macky Sall moo warut bokk na bu koor seet loolu loolu président même booñ ci meree xam nga ni dëgg la président bi ak ñi mu àndal ñoom même bu ñu meree tey te nag man nag san prétention meru yàlla rek moo ma intéressé ko wallahi azim meru sunu boroom rekk a ma. la la laa xam ni ma man kaa keer meru keneen moom du ma ko keer. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. xanaa ma tooñ ka ba ma ko tooñee nag danaa ko keer waaye nun tooñuñu nun lañ nar a tooñ. parce que tooñ weesuwul non ba pare diggee diggee dafa doy waar na bu ko diggee dafa ñu man moi je vois mal j'ai un problème aujourd'hui man damay damay toog ma ne man damay gént wala lan président Macky Sall mooy moo moo mel ni ku bëgg a wax Sénégalais yi damay def troisième mandat président Macky Sall mooy xool Sénégalais di leen wax ba ñi mu àndal di attisé lool président Sall bul nangu lu ni mel bul ko nangu ba vous gagnez quoi à forcer un mandat quoi qu'est-ce que vous allez gagner imposer doole armée génn kii armée bi du ànd ak yow de président noo la ko wax fii nag gis nga ñi nga di jël ay ordre di kii di appliquer nii nii nii nii la rek billaay population bi jógee ñu génn ci dañu lay bàyyi population bi de bul si duggu bul si dugg bul si dugg nit ñi sonn nañu force de sécurité yi seen biir ak agent de sécurité yi ña ca des ña ca mer a ëpp président ña ca mer ñoo ëpp le traitement on le connaît na mu war a mel melu ña ca kaw mën na nu baax le ña ca suuf du nu baax le waa nga foog ne ña ca suuf mën nañu wéy ñu ñu ñoom ñooy ñoo la xeex ñoo la def lépp te ñu gis seen bopp ci mbir mi kon ñi nga xam ne dañ leen dàqoon ci ci ci maanaam ñi ñu waroon engagé ou engagement. Mhm. ñu waroon leen dugal ci armée bi wala dugal leen ci euh, gendarmerie wala police ak feneen si jëmmi jamono ba dañ leen ko ñàkk defal. Mhm. léegi ñu ngi jëm ay échéance ñu ne dañ leen koy defal jeunes yu bari am na si ñenn ñoo xam ne dañ la naan demuma parce que bañ ko soxlaa dañ ñu ko lankal léegi nag ah dañ ñoo soxla pour ñun ñu ñëw di dóor suñu ay frère di dóor suñu ay mbokk. moi je me demande ki ki lan la lan la lan la quest parce que élection yi ñu jëm yàlla na am si jàmm ak salaam maa ngi dégg njoogu gay sama xarit bi fële ca Marseille mu naan sénégalais yu bëri ñu ngi préparé wu pour génn dëkk bi parce que xam nañ ni 2023 dafa nar a tàng. waaye yow ñun ñu dëkk suñu biir réew ñu ñuy génn réew mi parce que dafa nara déedéet bu kenn génn ka si génn demal dellu si jàmm ak salaam jàmm rekk moo la xew fii ñun ñu moom suñu réew benn groupe nit ne dañ koy taal li ñu bëgg am walla dañ koy taal ñun ñu ne dañuy daw génn réew mi xanaa ñun duñu ay nit bu fi kenn génn pour loolu kuy génn demal liggéey ñëwaat jàmm rekk moo fi xew ka fi nekk dalaa doxal jàmm mënoo ko yow yaay dem yow billaahi wallaahi tallaahi insha allahu rabbi ka nekk jàmmal ñu alhamdulilah boo ñu jàmmalul yow yaay dem xam nga fu ñu ko teg tàllal loxo sunu borom ñaan ka ne ko yàlla ku nar a salfaaña dëkk bi ci lu dul yoon yàlla na ko fi jëlee ci jàmm ak salaam ci lu gaaw nag ci lu gaaw te bu ko dara dal mook njabootam mu jóge fi rek ci lu gaaw ci na mu gën a rafetee ci jàmm ak salaam yàlla mooy doof bopp buy ka fi nar a toog rek u def lu bon wala sàkkan lu bon u teg muy plan jël suñu ay ressources jexe def naka suñu noonu yàlla na la yàlla roof bopp buy metti ba dootoo ko tal bu la dara dal nag moo xam Nurofen ngay naan wala euh, Doliprane wala la ca des waaw vraiment dañu sonn waaye mën ngeen ñu tiim di ñu nii ñun lekk ñu naanuñu ñu sonn fat nous avons des ressources à Sénégal way bu njëkk way dañ daan wax waa ñun aada cosaan xam nga réew mi amul amuñu dara amuñu or amuñu jama dañu ko wax wax li mooy nar yu njëkk ya. Mhm. dañoo nar nar a nar yàlla ñëw nag feeñal mbir mi mais fa feeñee moo léegi nag France moom li ko intéressé mooy la mu bëggoon am na ko ah nous avons des en plus le Sénégal léegi yéen yaay foog ñoom ñu imposer lu fi war a nekk ñu sonal nit ñi nag. suñu ay dirigeants suñu ay njiit war a am capacité là où le Burkina Faso fait face. son premier ministre appelle pour que mook Abdoulaye Diop ñu ànd Ibrahima Traoré ak Assimi Goïta def la fédération du Burkina du Mali ñooñu bëgg nañ dara ñun ñu bëgg continuer ci assouvissement. mënoo exploiter rek suñu ay population di xëy di tàllal loxo di yalwaan meen di xëy di tàllal loxo et nos dirigeants ça ne leur fait rien du tout et chaque élection on veut nous pomper tout le temps ci sensu ok nangam nangam nangam dama am sama benn xarit. oui. may mën a maa ngi laa nuyu xamal lu mhm. dañuy waxtaan ak ñeneen ak ñeneen xulli. Mhm. waaw mais il faut quand même xam nga parfois euh, à l'écran tu trop dur il faut diminuer parce que xam nga ñun ñëpp defar moo ñu tax a jóg waaye yow defar bu la taxee jóg doo jaaral mbir mi ci yoon mais ce qui est offusquant et hilarant ce qui fait que parfois on sort de nos gonds parce que saa waay dañ ñuy teg lu mënta nekk.